man maa ngi tudd Oustaz Harouna Ba dëkk fii ci Thiès dëkk ci quartier bu ñuy wax Sampaate euh, nekk ci si FM di fa waxtaan waxtaanu diine ànd ak Oustaz Ibrahima Badiane ñu gën ko xam ci Iran Ndaw alors Oustaz dafa mel ni dafa am ndongo bu la réer depuis màggal Tuuba ba léegi li bëgg nga wax ñu turam ak moom naka la mbir bi dikkee. Euh, euh, sëñ Umar dama am benn xale boo xamante ne daf ma réer depuis fanu màggal gi yàlla dogal xale bi ci daara ji la nekkoon di jàng mu ngi jóge Pout. daanaka juróom benn at ba ba juróom ñaari at ci lay toll biñ ko andee ci daara ji nag daanaka mat na ñaari at wala ñetti at ma nga ca daara ja yàlla dogal nag benn bis mu daw bi mu dawee ñu andi si ko ñu andi ko ci kër gi bi ñu ko andee ci kër gi ci guddi gi daal ci la rocceeku rek génnaat dem bi mu demee dippi boobu ba léegi amul fu ñu duggul dem nañ ci rajo yi dem nañ tribunal dem nañu police fu ne dugg nañ fa dem nañ ba Touba mais mënuñoo fexe ba gis ko te aussi tam ñëpp taxaw nañu di ñu jàppale pour xale bi feeñ mais dégguñu ko fenn moo tax nag vraiment ñu bëgg képp koo xamante ne gëm nga sunu borom subhaanahu wa taala yaakaar nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar nga itam mag ñu baax ñi nga xamante ne ñoo nekk ci maanaam ñoo nekkoon ci réew mi te dara ñoru leen woon lu dul alquran maa ngi ñaan xale boobu tudd Malick Sow yaayam tudd aminataka Ka papam tudd Hamed Sow mu dëkk Pout nekkoon Cees ci quartier Sampaate di fa jàngee képp ku ko for maa ngi ñaan ngir jëmm sunu borom subhaanahu wa taala nag ma dimbali jokkoog man ci numéro bii muy 77 573 15 te képp koo xamante ne gisal nga ma xale boobu génn naa ci sunu borom subhaanahu wa taala yàlla dana defar sa mbir aduna dana defar sa mbir itam alaxira te maa ngi ñaan képp ku ci mën dara nag ma nag ma jàppale te képp ku dégg itam sama baat effort boo mën a def ak jàppale boo ma mën a jàppale ndax xale bi feeñ maa ngi ñaan sunu borom subhaanahu wa taala yal na la yàlla gën a yal na la yàlla gën a dëgëral yal na yàlla yokku la wér yal na la yàlla may fan wu gudd gu ànd ak mujj gu nga xamante ne tam muy sëñ Umar nga di taxaw maanaam képp ku am soxla nga taxaw ci taxawaay bi nga ci war a taxaw ak waa groupe maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla fay leen ci barke alquran ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag man la Oustaz Harouna Ba maay laajte sama taalibe bi réer bëgg maanaam na ma ci jullit ñëpp jàppale doomu adama yëpp na ma ci jàppale wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.